ci bés ku la tooñoon nan ko baal tabaski jote yow raaw ba ñu leen di xar yaa ba ñëpp ñaanalante ci bés ku la tooñoon nan ko baal man baalu naa leen man baalu naa leen man baalu naa waaw ngir màggal bés bi ay dëkku li bali Sidy Youssou Ndour waaw du yàq bés bi kër gi nga neexul dara dara dara dara waral loolu puisque yow moo neexul man damaa ko man damaa man man xaw ma lu ma laal man ab xaalis ab xaalis mënu ko am yow tabaski bii di ñëw nga tabaski neexul sama tabaski moo baaxagul ah man sama côté moom baax na. li ma ne lu xew. ani man naar bi si laa nekk. naar ban ay ah, gisoo lu ma mel. Saay wax nga dëgg tax na nga sax. Ah, Masaay wax ma wax ma wax ma di ma si laal bu bëri laa si laal. sa yow ma wax la ñaari mi fekkee waxi naar bu ci dugg mun ma yow noppil. dama lay expliquer naar bi baaxul de. nga mel ku koy ku jox ay coupon moo baaxul. jërëjëf soo ñëwee si man xoolal ma teg la si axe. naar bi du bagage bu ko sax def métier dama nga liggéey bàyyi kii nii kii topp naar bi nii jëriñu ko dara. sax yow ngir yow naar naar bi li ma woon man su ma la ko waxee da ngay joon. la woon loolu yow la. waaye mënoo ba ngir yàlla yow mii. jërëjëf waaye pare. waaw gis nga ni ma mel. ay temps da ngaa taxaw naa lii du dara eh lii du dara. moo eh. yow comme noppi li ngay war noppi liggéey dama bañ nga dugg si ay tooxi doona damay dugg. waaw ah, sa affaire la nooto léegi ma baax na pare waaw pare nga pour tout. pare naa alal soxla. waaw ko ci ma benn cent mille. cent mille franc. cent mille franc xoolal sa tabaski. ok ñaar fukki junni ma teg si yow xaalis bu bëre. ñaar fukki junni. man na. bu ko jox. bari wala wala eh, soo ko jox di ñàkk. waxal waxal waxal waxal waxal naar bi baaxul de. dañ ma woo ni aw ma temps léegi kii ah bul ko déglu. sa boo amee temps rek xool taf ma si man naa la jox. bàyyi woon naa waaye naa duggaat de. mais bul fàtte saa yi nag. day ñëw. nekkal fii yow wóor. non yow toppal naar bi rek. yow bokkoog ñun de ñu toog fii boobu ba léegi mënuñu am dara. yow bokkoog ñi nga mel ay yow bokkoog bokkoog dëgg ko joxee cent maam sa àdduna dana yaaw. sa waay yow laaju ma la ma tax nga soxor. soxoruma de dama lay wax dëgg. yow mënoo am dara baaxul. sa weer yi nga la jox sa naar bi yow soo bàyyoo naaru naar bi dama nga liggéey moo ëpp sens bës bi yegg si na ma ñawlu sama yére bu cher ànd ak sama alaaji as ah. màggal bës bi jaadu naa def sang see ziyaare ji seeti sama yére asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum bismillahi yàlla xaalis bismillahi yàlla xar bismillahi yàlla xartum amiin ñeenti xaaf yooyu yàlla na ko yàlla boole defal nu ko nu am xaalis am xar am xartum barkem nabi Mustafa amiin alhamdulilahi rabbil alamin ah daanaka ñaan gi léegi mën naa doon googu ah waa est-ce que waaj dina ñu may ah waa de dana def nam defati woon daaw de cate woon na lool mu waa ah, daaw daaw cate woon na lool waaw de waat naa ko ci yàlla bi gàtt bi ñëw. yokku hmm. ca dana lool. daaw de aw béy hmm, wax de. aw béy wax de. guddi nag laa ko indi guddi. ah, ah ja waaw waaw waaw teel a rey. teel a ah ndeysaan. a rey. teel teel a rey boo am. waat naa ko ci yàlla boo naajee am ndax waa koñ bi fii amuñu sutura. fi ne loo rey. lu gàtt gàtt buñ génnee dinañ ne lii la. sama 20000 francs yi nga xam ne dinañ naaw. yow it sa 2500 yii de del fagaru tey denc sàcc si dañoo bari. sàcc si dañoo bari del del del denc bu baax a baax. fu ma jëm yóbbaale ne fi ne nii. nii rek nii rek balaa mu di daj. waaw ah, vingt mille francs yow ah, waaw waaleykum salaam. waaleykum salaam. yaa ngi toog. gis nga de bu jee tëdd naajee yow. amul amul amul kenn njariñ. lii yorul soxna de. kenn amul ko njariñ yorul jabar kenn amul ko mel. gis nga ni mu mel. yàlla nga tari ma ci wax naa ko yóbbee lii. Hmm? góorgóorlu nga am jom. sama jabar yëpp dam nañ amoon naa ñeent yëpp la sàmm suñu roy ci kanam gone yi bu waral di wax yooyu sama digg ak yow kii nag waaye ah, général bu toogee de bu loxo yooyu dama koy wax pour mu am jom ah dama ñàkk jom day naa yow te fi mu toll nii lenn naa ko xamal caleçon yi muy weer ci ligne gi wax naa ko mu bokk dëkkandoo yi damaa am ay xale yu dëkkandoo yu jigéen yu ndaw yu fi ñëw caleçon yu fuq ci bul ma bokk bul ma kobos laa wax. sëñ Diop kii nekk bul ma kobos. ñàkk fay dana def delloo ak moom sutura daa baax nag. ah waay sutura loolu dama ma fi indi ah. bii nii maa ngi war a jàpp 1 million 500. mais dafa manqué a jàpp. waaw mais dafa manqué tuuti. ah c'est ma da ngay kàcc waay. ah tos man dugal téeméer loolu neex na ba dee léegi li mu la laa bëgg ngeen. alma ñaata la manqué. mi ngi manqué vingt deux mille cinq cent. loo wax sànq ne moom nga yor. deux mille cinq cent man ma yor lan. vingt mille. Eh, yàlla ñëw na ko yàlla ñëw na mais loo yor deux mille la. 4500. tuutale nga ne moom. ah de ah, xaaral ma nañ ko dajale rek. waaw ah, na gaaw tuuti bu gaawee rek baax amul nekk tamit daa bëri quoi. loolu du problème loolu du problème. ma jox la wala ma jox siñ siñ Diop. waaw nag yi nag yi. ah. waaw ku la amul kii na ñëw rek. sama àdduna la waaw waaw incha allah day baax day baax. ku ne ñaata la day baax day baax ku ne ñaata la 500000 500000. maa ngi ko wax. waaw moom noonu la joxee 2500 pare man ma joxe lii ma mu am 2 ans. non non day baax. téeméer yu bare ngi ci nag. waaw waaw ko dajale ci weer wuyu ma. général waaw waaw. Ah, bàyyi xel sax yéen jaay dem na de. incha allah benn problème maa ngi ñëw léegi. général waaw maa ngi ñëw ah. a yàlla ñëw moo tax bu may ñaanate. del nangoo topp saa ginnaaw tey nangu ñaan. tey moom waaji gaaw na kii barke la feese. kii barke la feese. waajee gaaw il faut moom bu ko neexee parfois ah, moo léegi ci daal moo tax waaw yëf yi bu ñëwee nu muy demee. ñaata la wax cinquante. Hmm. ne dana am cinquante. cinquante mooy la cinquante cinquante ci digg bi tapit. mais yow deux mille cinq cent nga joxe rek. waaw loolu aw sëla di. Hmm? ñàkkoo di toog muy dox. xaw du ma ñàkk de ndax xamaa ñaan gi ma ñaan gi rek daanaka ñàkk naa. ah suñ daal dañ doon woo yàlla. yàlla foofu na ñëw. Ah, bi neexoon na nag def <laughs> jàppal ko jàppal na ko def ci dara <laughs> bisimilah. am na bu xew léegi. sururururura sururura sururururara suus suus taj suus suus suus suus suus suus suus suus eh, dégg daay bës bi bës bi yegg si naa ma ñëw lu sama yére bu cher ànd ak sama alaaji as màggal bës bi jaadu naa def sañ si ziyaare ji seeti samay nit ñu baax xol yi dafa war a neex bal ma àq bal na la